Boubacar Seye ñu ngi lay nuyu. Elisabeth ñu ngi lay fay. voilà nga jiite Horizon sans frontières jamono ji mbëkk mi mel ni tulleeg Mali euh, gis nañ ci euh, xale yi ñoo ngi gën di jël gaal yi te it bakkan yaa ngi gën di rot nga foog ne lan moo waral mbir mi euh, ñu nemmeekuwaat ko jamono ji waaw tey soo xoolee comme ni ko waxee rek tey la wàllu gën a ay damay wax ni sax man je préfère le mot reprise. Mm-hmm. le, le mot intensification du moins à la place de reprise comme ni ñu koy waxee parce que euh, li ko fiy jëlee musu fee jóg. Mm-hmm. Euh, li ko fiy jëlee nag mooy euh, la pauvreté l'extrême pauvreté mooy ndóol gu metti gi wër dëkk bi. Mm-hmm. li ko fiy jëlee mooy ñàkkum xëy ndaw ñi chômage endémique et structurel. Mm-hmm. li ko fiy jëlee aussi mooy l'écart de la mauvaise gouvernance bi nga xam ni tey day fat les perspectives d'épanouissement euh, ñi nga xam ni ñooy les couches les plus vulnérables mooy jeunesse yi xale yi ak ndaw ñi nga xam ni tey waruñu lu dul un avenir et une vie beaucoup plus digne mm-hmm. euh, ci beneen côté bi aussi tey euh, instantification intensification bi dafa am beneen paramètre bu ci dugg yeneen couche vulnérable bu ci dugg tey mooy nappkat yi mm-hmm. soo xoolee ñoom dem nañ ba nga xam ni ñoom seen métier mënatuñ cee dund Euh, boo xoolee euh, réforme yi am ci pêche bi. Mhm. convention yi ñu signé. Euh, ak la mal gouvernance tey ji bi nga xam ni dafa dafa dafa dafa dafa laal mbirum mbirum napp bi. Mhm. ñooñu dem nañ ba nga xam ni amatuñu yaakaar ci li ñuy liggéey te loolu rek la ñu xam boo xoolee ñoom seen àddina lépp napp la ci la ñu construire toute leur vie ñooñu dem nañ ba nga xam ni tey ñoom ñoo gën a yokk tey l' de ces flux là jël Sénégal Euh, euh, jubali fu nekk soo xoolee euh, les points stratégiques de sortie mooy dëkk napp yi Saint-Louis Kayar Mbour et cetera et cetera. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ñooñu dem nañ ba nga xam ni jaaxle tax na tey ñu jël Sénégal. pour pour pour une immigration aléatoire en Europe. Mm-hmm. ma jàpp nag ni ni ni ni ni loolu humiliation la toroxal la bu ñu leen def parce que xoolal dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ni ses côtes sont poissonneuses bu ñu demee ba nappkat yi jël Sénégal di dem ah bàyyi koog la pêche industrielle bi leen écrasé. ñoom ñuy dem di tenter loolu je crois que lu ñu war a xoolaat la. lii tey moom mooy expliquer ce phénomène là. Euh, may alerter aussi sur le fait que suñu doful nank l'ère post coronavirus. dina gën a yokk cette intensification là de ces flux parce que tout simplement l'extrême pauvreté day gën a wër nga le taux de chômage le taux de de pauvreté dafa gën a yokk Sénégal euh, lii moom mooy risque bi euh, suñu deful naan. mbaa gisoo ne mbir mi xaru lay niro ndax xale bu ñu demee ba ne Barça wala Barsak mu jaral leen lu ne ba ñu jël géej gi léegi bàyyi yoon yeeg euh, li beeg ñoom seen lu muy niro. waaw xam nga sànq dama wax ni la mauvaise gouvernance dafa créer ay doute yoo xam ni ci bopp nit ñi. Mhm. Euh, ba nga xam ni les esprits les plus vulnérables. Euh, gëmatuñ na mën nañ fi tekki parce que le le doute dafa dem ba nga xam ni dafa dafa perforer notre environnement socioculturel. Mhm. ba nga xam ni nit ñi gëmatuñ ne fii mën nañ fa tekki parce que dañu jaxat jaxate gisoo dëkk bi yëpp ay scandale la moo lekk lii jël na lii ba nit ñi foog nañ ni fii ñu juddoo nii mënatu ñu fee tekki loolu c'est excessivement grave donc euh, effectivement li am euh, suicide la euh, nu ko tuddee baax na mais désolation la lu ci bëri désolation la mhm. ba tax na tey il faudrait restaurer l'espoir à cette jeunesse là dem nañ ba nga xam ni pour ñoom il est même préférable dugg Europe dee que toog dans l'enfer africain la boo xoolee dëkk bi sax amul ndox et gis nga image bi koy firndeel Euh, gaal gi egg keroog Canaries xale yi di woy mhm. di woy di fecc ko egg na ñu ngi mel ni ku fi dugg àjjana malheureusement ñoom comprendre nañ ne ñoom ñëpp dañ leen di delloo si waat parce que l'Europe est formelle là-dessus le migrant sénégalais il il n'est pas protégé par la convention de Genève de 1951 il n'est pas protégé par le pacte européen sur l'immigration et le droit d'asile ba tax na boo xoolee waa Europe sax si boo xam tamit ñu ngi ratifier les les traités de Dublin 1 Dublin donc loolu malheureusement euh, mooy wax bi et tey il faudra tamit euh, ñu xoolaat yu bëri Alors, euh, il faudra créer ce déclic-là, euh, cette prise de conscience la pour que cette jeunesse bi nga xam ni tey richesse la mu bañ a nekk un fardeau bay dee ci géej gi un fardeau pour les dirigeants africains yi nga xam ni pratiquement euh, dans la prise en charge des problématiques liées à la jeunesse boo xoolee dañ ci lajj. Mm-hmm. donc il faut que tamit ñu nangoo wax li am. parce que li am tey gàcce la. justement lan moo tax Afrique tey mënul déggoo ci benn politique ñuy waaw xam nga l'Afrique dafa am problème mm, tey euh, africains yi déggoowuñu mhm. africains yi ku nekk kenn wóolul sa morom africains yi dañoo am problème de leadership moo tax tey gisoo Europe di daf lu leen neex soo xoolee tey dafa am ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires mhm. am na sax ñu wax ni ce ne sont plus les plus pauvres qui migrent boo xoolee euh, tey le profil du migrant profil yëpp a ngi ci mhm. mais malheureusement la gestion de ces flux est exclusivement réservée à l'Europe moom mooy daf lu ko neex Afrique waxul dañ naan patt patara di toog ñu jox ko xaalis mu lekk ko l'immigration dafa dem ba nekk une soupape de sûreté pour les pour les états africains mm-hmm. ñu ñu résoudre seen morosité économique refaire leur santé économique donc ñoom immigration bi daal ñoom donc c'est c'est la poule aux œufs d'or donc naufrage yi na am ñu laaj xaalis ni l'aide au développement parce que comme l'Europe cherche à mais Europe si boppam xam nañ ñoom xaalis bi ñuy dugal Afrique rek demul ci mu war a dem gisoo tey li am Sénégal ñëpp a ngi génn fu nekk di dem donc loolu mooy problème mu des problèmes euh, gisoo sugaal gaal amee benn dëkk du d'accord ni ay ay ay ay mbokkam ñoo dee. Mhm. waaye suñu nee léegi ñëw leen jël ci xaalis Bruxelles ñoom ñëpp ñu daw xaalis boobu la ñuy séddoo la ñuy lekk seen biir. donc li am ils sont responsables. Mm-hmm. man dama wax ni sax on devrait les accuser de crime contre cette jeunesse africaine bi nga xam ni tey comme ni nga ko waxee ñu ngi si seen réew parce que tout simplement dañoo bëgg dund comme ñëpp. tey nga foog ne ban taxawaay le gouvernement sénégalais war a am ci mbir mi nga xam ne mënuñoo toog bés te duñ ko dégg. waaw xam nga dafa am une réalité ki est là dama wax sànq une multiplication une conjugaison de de facteurs structurels. Mm-hmm. Hein, euh, évolution démographique extrême pauvreté tey soo jëlee hmm, Afrique. Mhm. di nga gis ni 60 pour cent des Africains ont moins de 25 ans. am na am na ay bor ay ay ay démographe yu wax ni à l'horizon 2050 35 pour cent des jeunes même ci addina bi ay Africains la ñu nekk. mais cette spécificité nag dafa nekk une donnée essentielle pour tabax Afrique. Mhm. tey dama wax ni faire de la jeunesse une priorité moom mooy miser sur l'avenir du continent. Euh, d'ici deux mille trente dafa am ay démographe ñeneen ñu ne dina am entre trente ba quarante millions de jeunes africains yoo xam ne dañuy ñëw sur le marché du travail. Mhm. donc tey vous conviendrez avec moi que les les les les les défis en matière d'emploi sont majeurs au regard des prévisions démographiques. Mhm. et des réalités économiques. ba tax na Afrique pour mu génn ci. pour tey mu redonner de l'espoir à cette jeunesse. Ouais. il faut que Afrique. mu créer d'ici deux mille trente environ cinq cent millions d'emplois supplémentaires loolu la Afrique mën a def pour réduire les risques. Mhm. loolu nag mën naa nekk ci kaw euh, mu am cette volonté politique euh, ci kaw aussi euh, ñu redynamiser secteur bu mel ni l'agriculture moom moo war a nekk secteur de relance la filière de relance en Afrique. Okay. également aussi l'employabilité des jeunes parce que loolu c'est important il faut que ñu orienter les filières de formation euh, vers des offres besoin marché bi. Mm-hmm. et avec aussi vers des métiers de l'avenir je crois que défi yooyu la Afrique euh, mën a jël. Euh, pour que li am ni Mm -hmm. euh, d'ici d'ici d'ici d'ici d'ici trente ans quarante ans mu wàññeeku. Mm-hmm. mais nag ci kaw mu am cette vision stratégique euh, cette vision futuriste. et humaniste envers les générations futures loolu nag moo fi amul parce que dirigeants yi fi nekk soo xoolee dañuy jël da lekk ba suur daal di jël li ci def denti yi ak say mbokk loolu moo indi yëpp parce que ils sont responsables amul beneen responsabilité boo xam ni tey mën nañ ko imputer keneen lu dul les état africain les dirigeants africains qui ont tous échoué koo ci gis mu ngi tiitaroo ay milliards lu mu yore moo tax Afrique moo tax européens yi mënuñu leen nawloo parce que li li dirigeant africain ñime ci askanam ni dirigeant européen ñimewu ko. Mm-hmm. ba pare nga bëgg di laaj xaalis mais tu comprendras que Europe duñ leen nawloo lii mooy am. Euh, monsieur Seye ñu gis ne euh, dëgg la ñàkkum xëyu ndaw yi bokk na ci liy tax ndaw yooyu le sax euh, dem dugg ci gaal yi waaye tey gis nañ sax tamit am na ñuy bàyyi seen liggéey fii ñi nga xam ne ñoo ngi jàpp ci dara bàyyi ko fi dem. wuti loo xamul. voilà loolu boobu théorie ñu ngi koy c'est la théorie macroéconomique moom mooy dafa am benn un fort différentiel géographique entre l'offre et loolu dafa nekk facteur de propension mooy nga toog fii nii ah man de sama liggéey bii de su Europe ci lañ may gën a fayee ci loolu yooyu yëpp effectivement c'est des réalités. Hmm. ba tax na rek man dama jàpp ni tey euh, il faut que ñu renforcer la sensibilisation avec yeneen modalités euh, pour créer un déclic pour créer une révolution culturelle épistémologique pour une relecture des perspectives pour que doomu Afrique xam ne gis nga Afrique gi keneen du ko tabax lu dul hmm. ñëw tabaxal Mm-hmm. donc loolu je crois que foofu la ñu war a liggéeyee euh, sur les causes sociologiques nit ñi aussi xam parce que dañu nekk ci dëkk boo xam ni la notion de am-am dañ ko dañ ko dañ ko lu mu am lu mu tekki dañoo dem ba nga xam am-am dañ ko teg au-delà de l'être mm-hmm. qui l'incarnation des valeurs et des ki ki am mooy ki baax. ba nga xam ni ku amul socialement tu es exclu c'est une mort sociale ba nga xam ni loolu yëpp tey dañ ko war a xoolaat nit ñi xam ni aussi euh, y a une relation linéaire entre liggéey ak am-am mënoo tëb rek am lépp lépp oto bee ki ko moom oto bu rafet ba la ngay gis na le dernier cri bale ki ko moom am na fu mu jaar am na ay étapes yu mu jaar ba am ko yooyu yëpp aussi dafa war a leeral mm-hmm. mais mauvaise gouvernance bi tax na tey le politicien bi nga xam ne daful dara teg ay immeuble teg ay oto dernier cri mais tax xale yi kenn gëmatul tey liggéey mën na laa jox lii donc voilà autant de de de de de de mm-hmm. qu'il faut poser sur la table ñu toog waxtaan ci. Mm-hmm. pour mën a saafara aussi xoolaat notre système éducatif yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat parce que aussi. euh, nous avons une jeunesse internationale hein boo xoolee le degré de pénétra pénétration du mobile super est supérieur à 60 pour cent xam nañ li xew bi mm-hmm. les télévisions et autres là jouent beneen rôle boo xam ni rek ça crée des imaginaires migratoires yooyu yëpp tey dafa war a nekk l'objet d'un débat de fond moo tax may ñaax le président de la République mm-hmm. euh, pour que gis nga migration dafa transversale euh, pour que mu crée le plus rapidement des assises de la migration. un, un ministère chargé des migrations internationales. d'accord loolu moom mooy saytu de wala une agence autonome reliée directement à la présidence pour mën a saytu ces problématiques liées à la migration pour que cette jeunesse africaine là cette jeunesse sénégalaise en particulier ñu mën a leen a sauver il faut que mu am des ateliers de relecture de la perspective. avec des outils d'aide à la prise de décision. Mm -hmm. pour que les esprits les plus vulnérables delloo si seen xel. waaw am na ñu ne comme ku ci mel ni euh, Moustapha Diakhaté euh, jiite woon fi groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nee na faw ñu criminaliser li ni mel su ko defee mu dakk fi ndax jàpp nga ne euh, solution la. waaw xam nga entre autres moom nit ñi jaaxle nañu ba nga xam ni effectivement ñu ngi xool des ébauches de solution un peu entre mm. autres mën naa nekk solution. Mm. mais man li ma jàpp rek moom mooy tey. Euh, il faut que euh, xam nga tey immigration moo yore àddina. Euh, c'est un élément essentiel de la géopolitique mondiale. ñu nekk tamit ci contexte mondial de mobilité croissante des populations parce que tey ce ne sont même plus les plus pauvres qui migrent donc dama jàpp ni li ñu waroon xoolaat tey pour jàmm addina bi. Mhm. il faut que ñu xoolaat les lois sur l'immigration parce que contexte bi la. Euh, il faut que tey euh, ñu instaurer le droit à l'immigration parce que amul woon. amul ba léegi moom moo war a nekk la réponse logique. du droit à l'émigration que le que de la déclaration universelle de l'homme parce que soo xoolee Europe dafay jalgati le droit international. Mhm. tey Europe mu le contraire de l'identité on a construit la migration comme une marchandise électorale pour gagner des élections mhm. les dirigeants européens gis nga les déclarations de Macron sur l'islam aujourd'hui l'islam la migration mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique mhm. donc tey dañuy tey euh, euh, euh, noonu la ñu jàppee immigration. Mhm. ba tax na avec le Covid même boo xoolee y aura beaucoup d' autres tensions géopolitiques liées à l'immigration avec l'ère post-Covid parce que tey y a un risque de de, de récession mondiale. Mhm. ba nga xam ni tey dëkku européen li ñuy préciser bi ñuy préciser c'est la théorie de remplacement ñii di dañ ñëw pour jël li fi nekk. moo tax tey il faut que ñu xoolaat loi yi mhm. euh, renforcer les processus d'intégration ba nga xam ni tey dañuy jàppee migration comme étant un complément bii nga xam ne day indi taaweeku une dilatation de l'économie et de la société mm-hmm. immigration yokkute la et les européens xam nañ ko seulement nag dafa am dëkk yoo xam ni ils ont un statut particulier dañoo naafeq mooy la France parce que la France soxlawul immigration c'est une terre d'immigration dafa feeñ ñoom seen biir ñeenti français yoo jël kenn ci maamam gan la ñooñu nag ñoo yàq yeneen dëkk yi ba nga xam ne l'effet domino daf koy bëri loolu nag ça menace la paix et la sécurité mondiale mm-hmm. tey li ñu war a def tey xoolaat des réformes sur le droit d'asile li ñu war a xoolaat tey fexe ba joxaat doole la convention Genève de 1951 mm sur l'immigration et le droit d'asile parce que nag les pays européens là ñu le droit international loolu aussi du yoon il faut que l'Europe s'adonne aux nouvelles donne des migrations internationales pour jàmm àddina bi loolu je crois que loolu moo war a nekk l'objet d'un débat de fond ñu inscrire la migration sur le calendrier international alors que pour que mën a dox jàmm ci àddina jeexaleek euh, gaal gi nga xam ne fa la ñu dégg incendie gi am daal di faat ay migrants euh, tey jii après recoupement ndax am ngeen nombre exact bu migrants ya fa nekkoon ñi ñàkk seen non exactement exactement nous n'avons pas parce que boo xoolee démb euh, euh, ba débat yi ñu ci def yëpp on nous parlait de vingt morts tey gis nga déggaat na cent cinquante morts. Mm-hmm. moi j'attendais à ce que le procureur effectivement mu ouvrir une enquête. Mm-hmm. voilà pour euh, ñu gën a leeral nit ñi li xew. Mm-hmm. mais malheureusement silence radio sur ce côté-là et ça aussi nous le regrettons vivement. waaw ah, waaw parce que tey li ñu waroon taxaw moom mooy leeral nit ñi. mais vous comprendrez que duñ ci nangoo wax parce que aussi c'est l'échec tout simplement du système et du régime donc euh, boo xoolee buñ ko mënoon buñ ci mënoon a kii sax euh, duñ ci wax mais ñun li ñu contre aussi mooy yi bu amee ñoom duñ ci wax mais euh, su xaalis jotee ñu dem jëli ko donc nañu fexe ba donc suñu xaalis amee jotee ñu gëm seen loxo ba nga xam ñii di joxe xaalis ñu dem jox ko aux ayants droit. Mm-hmm. voilà. Boubacar Seye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Isabelle man maa leen di remercier.